rahmaani rahiim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain ah préparé wu na ma kàddu xanaa ma wéeru ci yàlla rek mu dëgëral sama naam yi lu dul di di leen sant di leen gërëm di sant lu ñu mën tey di ko def ci diine la ak li mu def ci ñun moo tax yàlla may ñu ci kàttanam ñu dem ci fi ñu wax bilaadul xarb ci dëkk Occident yi mën fa taxaw di di mën a wax ak ñi nga xamante ne ay jullit lañ ak ñu dul jullit pour wax leen ne aussi alhamdulilah continuer leen ci liggéey bi comme nu ñu ko yàlla subhanahu wa taala santé walladina jaahadu fii naa lanahdiyannahum subulana donc tant que ñuy góorgóorlu pour diine yàlla bi subhanahu wa taala yàlla dinañu dimbali léegi nag li gën a am solo tey moom mooy góorgóorlu ci suñu comportement ndax tey jii l'islam fi mu toll comportement rek moo mën a yóbbu mbir ci kanam exemple yi bëri na ci foofu ñoo xamante ne ay tubaab lañ di tuub di dugg ci l'islam dem ba ay nekk ay borom xam-xam yu mag tey di def ay daawa di dugg ci diine gi mais di ci liggéey liggéey bu am solo loolu yëpp nag ci jikko ju rafet di yent bi alayhi salaatu wa salaam euh, def ci ñun jàngal ñu ñu war cee nekk bañ ko bàyyi yal nañ ko yàlla subhanahu wa taala defal mbooloo mi nga xamante ne ñooy góorgóorlu ci liggéey bi yal na ko yàlla yal na yàlla sàmm lépp ko xamante ne def na ci dërëmam ak def na ci dooleem yal na yàlla subhanahu wa taala loolu yëpp ñu fekk ko yomal xiyaama allah ma jàng benn aaya rek ci li ñu ustaas jàngaloon incha allah ñu yokk ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 تنصرنا على القوم الكافرين الله يبارك فيكم جزاكم الله خير